man maa bu doole maa ngi ne ndaw nee na lamb ji xaalis moo tax ma jël ko man dama am xaalis damay sant yàlla damay liggéey man dama bokk ci lamb dinaa ko wan ne lamb ji xaalis jëli woo maa ngi a doon ndaw maa ngi a doon xale barki seen yi ma dama ko mu jeex seel taan ñaa su ma ko jàppee dama koy daan doo moroomam nee na xaalis moo tax nga dugg man xaalis jëlu ma dégg ko ma de avance ba mu ñëwee dama koo maye avance ba mu ñëwee lamb yi dama koy jàpp dama koy daan incha allah ci kàttanu yàlla fii laa la ko waxee. dina leer dinaa ñëw tënkee. déggu ma de. dinaa ñëw tënkee dina leer. incha kii màggal la kii bare na. jaajëf. teg la ziar naa la. delloo gis nañ ñu gis beneen seex bu ñu daan waa waaw looloo laaj bés bi moo laaj loolu. bés bi moo laaj loolu. moo laaj léegi Alboury mu ne mu ne sa diggante ak moom wax ju bari rek moo la si dugal. waaw yow moom day ndelu rek du dara barki yàlla day ndelu combat bi ndelu rek la si am day poxoleeru di ndelu mais du si leen leer laa lay tegal. Alboury man maa ko gën a dof man dof laa maa ko gën a dof ah. man dof la maa ko gën a dof. combat bi warul wax Alboury maa moom suñ combat mos na taxaw mu delloo avance gi. waaw léegi nag man mosuma dellu ginnaaw Marrakech la du ma dellu ginaaw kii day xaar. maa ngi koy sant di ko gërëm nag moo jël sama avance sama avance dugg na fu ne maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm mais bu bés ba incha dina xam ne lépp dëgg la waaye yow. bés dina xam ne mbalaxu bopp yuura koy fecci kii dafa doon yuura koy fecci. wax yow. dafa leer di woo ñëpp woo aduna ñëpp bàyyi ma kenn di woo sama yaay soxna Aida maa ngi koy woo bu baax si combat bi maa ngi koy woo bu baax si ñoo jàpp si bu baax di woo waa Dóor Dóoraat di woo waa Parcelles Opo waaw di woo Keba Kande bu baax a baax gis naa taxawaayam waaw may woo ñëpp man du àndee waaw waaw xooyaa foole sirmang fop xooyaa foole seereer fop oya fole a ñoƴoor jon waar faya ko basul basar jinra ngajoor tout siwo fop a munde me woya fop no combat fane nu ngar ndamtam le 9 juillet inchallah felangaro in fa albouri combat ne xana jarul bi seereer waaw waaw waaw mi référence e fum seereer o yakarama yakara paax paax paax paax ka i nga bi fop ka maaf waaw ka laaju ka la waaw ka fop wasimol leŋ kam den félicité ya den fop yasam lakas a ɓaato ten roog fi'an a den de njeg de i neengeɗa yit am de ngara ndamta in an sikta in a paax a paax bo i mbaw o njeg ndam na combat fane inoyo ke inchaalah a